defal lu bëri léegi nag kooku moo leen ne kii la la leen wax ngeen tuddee affaire bi mu ne euh, cartel kàngam mu ne est-ce que xam ngeen luy cartel gars yi ne ko noonu mu ne cartel mooy groupe kàngam mooy borom xam-xam yi donc kii li mu leen wax tour bu intéressant la mais comme amoon na am ñaa xam ne dañ may bëgg di kaañoo chaque fois su ma ñëwee naa ma kàngam ma ñëw kàngam kàngam ma daal di dem si sama Facebook parce que nit ki parfois bu ñu la bëggee def benn affaire pour sa Euh, pour mu nekk sa point faible mhm. da nga koy retourner def ko point fort ci laa dem sama point sama Facebook def Elma Soro bi moo ci nekkoon ma dolli ci la kàngam fas sama kanam ok kon man y avait un ami du nom de Stéphane Kabou artiste la euh, mais léegi sax euh, il est plutôt journaliste moom moo ma dugal ci musique moo ma daan fecc loo ay Oscar de vacances nañ dem def lii nañ dem def lii ba dugal ma ci affaire hip hop ma dem nag ba bëgg ko nakate talent bi mi ngi woon ci man foofu foofu la jógee c'était en 97 suma juum 1997 ah, ok nga bàyyi ko quoi nga dem beneen groupe noonu lañ mel ni mercato ok xam nga lool c'était au début quoi mais euh, depuis free concept ak free concept sax foo la maturité bi gën a yokku te foofu on était séparés musicalement c'était on était séparés musicalement musique moo ñu boole woon musique moo ñu séparé mais c'était pas quelque chose de de de de def féroce wala genre affaire yooyu noonu quoi léegi nag ma demee ba sentir ne le besoin de nekk ak man sama bopp ma xam ne man il faut ma concentré sama bopp pour dem ci la concentré wu sama bopp pour dem ñu tase may sëgg di ruus wala genre wala mu may mere musul am bu ñu ku ma mës a àndal mës a séparé ak moom dañu séparé musicalement donc kon du question ne dama je me je me vois haut wala dara parce que fii kenn aayu fi mhm. talent bi ma am sax du sama ngóora yàlla moo ma ko may mhm. donc kon ah, lan moo fi jar may ñoddi benn affaire bi quoi pour man du woon loolu quoi nit ki looy gën a dem di gën a kii di gën a sentir sa bopp xam nga di gën a sentir ne yow lii boo ko defee ci ngay gën a avancé nga def ko ok musique amul sentiment ok dëgg it ok depuis 2006 ça fait léegi maintenant 2006 ba mille kii rek 2006 euh, 2016 ba deux mille 2020 rek. ok 4 euh, ans la plus dix ans yi 14 15 16 17 17 ans de de de, de beatmaking te Saliou Seck Lil Nas. ok moom ma inspiré euh, ma koy saluer de passage mi ngi France ci ci label bu mag. yor ay rajo boppam yor ay affaire boppam kooku moom a jàngal beatmaking jox ma ay logiciel FL Studio et tout. ma commencé ci. après bi ma demee ba 2010 bi ñu def jëlee concours Nescafé bi après dama ne lii nekkatul caaxaan quoi xaar ma dem jàngi musique après ma dem école nationale des arts. dem def fa 6 ans am sama diplôme médaille de solfège. waaw am sama diplôme génn continuer sama beatmaking ba ba may utiliser léegi Logic Pro quoi. ok. positivement pour arriver à tes à tes quoi. mais mënoo ne damaa bëgg lii ba pare di tëdd di nelaw wala ngay buñ la laa jàngal lii nga kii buñ la laa gëstu lii nga bañ après nga bëgg cee tekki nit ku loo joxul cër looy def boo ko joxul cër du la la ko delloo te man musique bi may def dama ko jox cër dama ko respecté mm-hmm. moo tax mu may moo koy delloo benn par benn quoi. ok foofu noonu sama contrat jeex ma sentir le besoin libre dem digital musique sama benn grand ubbil ma benn affaire ma dem fa nekk fa gérer lépp. ba def fa trois ans moom tamit waaw néegu rab dama fa jógee ci njekk ak teraanga ba léegi ñu ngi déggante dem euh, démboo Njaay laa fa dem def prise de voix. ok waaw foofu moom lu ma sama kër la lu ma fa bëgg a def rek damay ñëw def ko fa du ma tàggu sax. néegu rab léegi nag dama bëgg a jaay musique Sénégal te scène bi du man kese maa koy def am na ñu bari ñu ngi def léegi Sénégal tendance ba nga xam ne ñu ngi koy def léegi dañuy jël hip hop boole kook ay sabar boole kook ay tama boole kook kii. loolu man loolu laa tuddee SN bi te du man rek ngaa ko def même bu fekkee initié naa ko gis naa ñu bëri léegi ñu ngi koy def album bi la ma sentir ne xam nga affaire yi yu bëri maa ngi koy dox mais dama sentiroon daal dem ci yeneen univers quoi. ok waaw loolu la mënu du question la nga xam ne lu lu luñ jotee wala genre non dama dama sentir le besoin. nekk ci sama bopp te bi ma ko defee rëccu ma ko ndax gis nga avancement bi. ok donc j'avais j'avais bien choisi quoi. xam naa leen bu baax te ñu ngi may jàppale su ma nee ni ngi may jàppale le fait que ma génnee dara ñu koy ñu koy déglu di ko suivre rek di dem di abonné sama chaîne YouTube rek xeebuma loolu ñu ngi may jàppale. bu fekkee autorités yi bien que man xamuma autorité yu bari foofu mais xam naa fa ay des gens comme euh, Pape Farid Seye xam naa ko. Euh, moom professe euh, professeur la ba pare moom moo nekk principe foog naa moo yor euh, lycée Kër Xaadim ak kan am na ñu ma xam yeneen autorité mais bëriwuñu quoi. ok ñi ma xam bëriwuñu ci ci autorité Diourbel Diourbelloise man je je connais plus la population Diourbelloise ñi ma gën a jege mais am naa samay nit ya nga xam ne man ñooñu laay jàppee samay autorité ok voilà comme ay Philomène kan Diourbel la dëkk sama rakk la mais dafay participer sama musique sama musique sama carrière bu baax. waaw kooku moom moom ak jëkkëram ma leen di saluer de passage aw ma seen fay Patrice donc euh, ak ñoom Christophe ak ñoom am na ñaa xam ne du xaalis sax bu ñu lay jox mais taxaw bu ñu lay taxaw ay mbay maara xam nga ay bii moo ci am gars yi dafa bëri dafa bëri ñi may jàppale foofu Jurbel lañ dëkk su ma nekkee di lim damay juum. juum voilà mais bu fekkee côté autorité yi moom ah peut-être dinañ ñëw après jàpp ci sama carrière ma dem ci DJ Awadi Magui euh, ma leen di saluer de passage ñu alma ay caméra ak Tino Diop. ma woo Dianfana Kandé ma koy saluer de passage te mu nekk moom mooy le monteur de Marodi mu defaral ma clip ma defaree clip ma monté ko man ak sama benn copain bu tudd Bass xam nga ñu génnee affaire bi rek commencé dem quoi léegi nag bi ma jógee ci loolu après ci la ma waa néegu rab jël ci la ma néegu rab jël parce que gis nañ sama talent ma nekk fa en tant que ingénieur de son ba pare en tant que artiste def fa ay samay œuvre génnee fa album bu tudd Jiligan Jiligan moo daax mais album bu mujj bi moo tàkk ok parce que album bu mujj bi bi ma jógee Côte d'Ivoire ñëw bi ma demee benn festival Massa. ok laa ñëw def album bi mu tàkk. ok def benn clip mu am 4 million de vues et mu laay cegin donc kon affaire yi liggéey rek moo am solo parce que man bi may jàngee école école nationale des arts dama daan jógee Wakaam di dox ba. ba ba ba liberté 6 ex des fois da ngay am paas nga dem mhm. mais boo taamalee sa bopp di paas li nga toll en un moment donné. Mhm. dootoo mën dootoo mën paas quoi xaw ma nag comprendre nga fi may waxee. baax a léegi boo amul paas. Mhm. da ngay obligé daw cours bi toog. Mhm. léegi boo amee paas bu dee nag da nga comme man li may am paas bariwul. naay naay tàmm di dox. léegi tàmm di dox boobu boo amee paas da ngay dem boo amul paas da ngay dem. léegi nag bu ma jugee bu ma demee ba Liberté 6 extension def sama cours. ngoon gi ma dem Pentola. mooy pentola foofu tamit ci camp wetu camp kii bi deux voies yi liberté six laa doon dem di jàng euh, vidéo ak ak photo ah pour am quelque notion ci affaire boobu parce que xam nga xam-xam du doy quoi mhm. looloo sax moo tax samay clip boo gisee samay scénario lépp man maa man maay bind lépp maay bind lépp ah, storyboard bi yëpp maa koy bind après gén def euh, réalisateur bi def ay ajustement ñu génnee parce que commencé woon naa di def répétition live ak sama groupe orchestre bi def nañ benn soirée au Raven Night Club mu nekk benn réussite donc euh, ma xawoon pause concentré wu ci boobu maa ngi préparé sama clip bi ak sama yenn affaires yi léegi nag dama koy reprendre incha allah dama koy reprendre yàggul dara commencé jouer ci yenn milieu yi quoi donc leneen li si des nag lépp maa ngi ci liggéey bi macha allah je me suis démarqué pour me faire remarquer musique Sénégal du question damay sabote sabote mënuma sabote musique Sénégal parce que maa ngi ci biir euh, mais ñu ngi góor góorlu bu baax parce que boo gisee rappeurs yi ñu ngi am na ña xam ne xam nañ comprendre nañ te ñu ngi innové am na ña nga xam ne nag bëgguñu bose fu ñu toog mais niveau bi fi mu nekk mën na gën a kawe parce que euh, des fois nit mën na jàppee niveau bu kawe kawe kawe alors que foofu du niveau mm-hmm. foofu du niveau ñun mën nañ gën a kaweel niveau bi parce que ñun ñoo nekkoon boo boo waxaan rab Afrique rek ñëpp dañ daan wax Sénégal mm-hmm. te loolu dañ ko perte léegi ñeneen ñi ñoo téye euh, musique ak hip hop mondial quoi ci ci ay nigériens yi fii ay sud africains yi ñoom ñooy créer seen genre di ko imposé mais ñun nag ñun dañuy créer suñuy genre musical sax mais suñu grand yi sax parfois ñoo ñoo lay critiquer te loolu ci grand yi laak ci boy yi loolu ñëpp la quoi mm-hmm. Sénégal day am comme ça dañ naan day am ka xam ne ceebu jën lay togg mm-hmm. di togg ceebu jën di togg ceebu jën léegi xam na ne keneen bu toggee suppu kanja rek ñëpp wala maafe ñi ñi dañuy dem ci mu suppu kanja mhm. léegi boo demee di nar a lekk suppu kanja ñoom ku lekk suppu kanja féeg nga góor jigéen nga mhm. xaw ma nag comprendre nga parce que day bëgg ngay lekk chaque jour ceebu jën bu baax a baax musique bi noonu la demee Sénégal mhm. fi disque d'or yi ñu fi am yëpp dañ ko bokk benn tubaab wala à part mbalax maa ni sax ñoo ay kumba gawlo gars yi ñoo fi am ay disque d'or yi xam ne ñoom macha allah amul werante ay vidéo bu bees ñoom mais ñun ñii nii ñu mujj ñi pour ñu am disque d'or dañuy gën a yëkkati niveau bi gën a am ouverture d'esprit. Mhm. comprendre nag ba pare sénégalais yi gën ñu jàppale ñun ñu tamit ñu gën a jàppalante suñu bopp. Mhm. ñun hip hop bi. Mhm. di partage xam nga di di boole suñu xool yi. di di créer di di di di xool lan moo lan moo mën a développer musique bi. loolu loolu lool loolu mooy tax ñu àgg fenn fii mais boo ñëwee rek comme ça nit c'est bien boo nga def ak kenn featuring wala dara album bi am disque d'or da ngay am disque d'or c'est forcé mhm. mais tamit li dàq mooy yow nga liggéeyal sa bopp am ay disque d'or say say disque d'or bopp mhm. comme ni ko ñeneen ñi di defee mhm. yee pour man suñu industrie musicale mën na gën a kawe parce que bu dee talent moom sénégalais kenn ëpp ko talent talent moom fii boo doon wër fii ba suba da ngay fii ñëpp ñu bëri dañoo am talent mais am na benn son ba nga xam ne benn japonais la xaw ma chinois xaw ma kan nga ngangam style xam nga son boobu baax ñaata milliards de vues la am hmm? léegi loolu noonu da xam li muy wax yow déedéet léegi lan moo tax mu percé mhm. kon du mbind mi musicalement quoi voilà mhm. c' est musical mhm. il faut oser il faut oser def ay affaire ya nga xam ne day jaay international kooku daa ñëw def ngàngam style waxu ci dara ci son bi ay kii kii la ay son son yi fi toj ay laali pap en kii just make it clap lan lay wax doo xam li muy wax ak ay tàcc tàcc tàcc tàcc gis nga kii genre musique yooyu dafa toj àdduna. Mhm. mais ñun du ko moo tax ma ne la du mbind. Mhm. musicalité la. Mhm. mbind nag dafa neex ci nopp ngay bind loo dégg di ko wax mu neex. ngay bind lu am sens di conscientiser sensibiliser mais sur le plan musical. li la mën a jaay du écriture quoi. technique la ak ak ak ak musicalité technique ni ngay wayee ni ngay création yi mélodie yi affaire yooyu ak. la nga xam ne peut-être yàlla moo la koy may mooy voix bu naturel mm-hmm. waaw man moom alhamdulilah sama voix moom